المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزيل لحن حق القول على أكثرهم فهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون حسبك العظيم ñaanal yàlla mu yokk seen tawfiq mu yokk seenu liggéey ca nangu liggéey ci barke Sëriñ Tuubaa di sant mboolem koo xam ne wooy jur nga ci daara ji ndax ñoom itam euh, ñu am solo lañ ci daara ji ndax bu ñu fi indiwutoon ay xale kon jàngale du mën a am kon sëriñ bi ngeen di beral ak cant ak donte itam cant googu euh, ñoom ci seen bopp ya war na ci seen diggante sëriñ bi waaye sëriñ bi tamit leen di sant ci loolu di sant moo dem ñi nga xam ne ñu ngi taxaw daara ji muy waa xidmatul xadim ak ku ñu mën a nekk ak ñi nga xam ne ñooy taxaw daara ji ci wàllu set yi ak ñi leen di taxaw ci wàllu fóot yi ñëpp daara ji nag comme ni ñu ko yàgg di waxee sëriñ bi mi ngi ko sos ci atum 2002 booba Cheikh Salih radiyallahu anhu moo fi nekkoon mu demoon ca laajoon ko ci ndigal mu jox ko ko ñaanal ko ci jàppale ko ci sëriñ bi ñëw sos ko bi mu ko sosee itam booba ku bi ñëwoon te gis ni sëriñ bi sose woon daara ji danga xam ne pas-pas rek mooy li am solo ndax booba defe na mel mbaar bu 5 mètres moo fi nekkoon ak ñaari néeg booba itam la fi nekkoon ci ay donga mi ngi tolloon ci juróom-ñaari donga boobu la fi nekkoon ak sëriñ bi sëriñ bi nekk ca loola wéetandikoo ci boromam subhanahu wa taala ca loolu rek mooy li am solo di ca liggéeyal sëriñ bi nekk ja ba ku ne xam na ne tey alhamdulilahi rabbil alamin mbirum sunu borom subhanahu wa taala rawatina téere bi yàlla bi képp koo xam ne taxaw nga ci ta xaw ci nañ ca war a taxawee kanam rek day jëm waaye du du mas a dellu dina insha allah bi sëriñ bi ci loolu itam di fi liggéey di fi jàngale euh, wut jàngalekat bu fi nekk euh, ab diir ñu xam ne mbir bu nekk nag day aaje di yokk moo tax euh, incha allah danañ ci egsi ci kanam mboolem yokk yi nga xam ne daara ji jur na ko euh, kon dafa mel ne diggante ba mu ko sosee ak tey mu ngi toll ci fukki at ak juróom-ñett ci di fukki at ak juróom-ñett yooyu nag résultat yi nga xam ne daara ji am na ko ci wàllu njàngale mooy gis nañu ne li fi mbokkal alxuraan ci biir daara ji mi ngi toll ci ñaar téeméeri donga ak juróom ñeent fukk 290 ay xale yoo xam ne fii dañu jànge alxuraan ba mokkal ko ci biir 290 euh, yooyu nag li fi bind ay kaamil mi ngi toll ci 175 maanaam téeméeri xale téeméeri donga ak juróom-ñaar fukk ak juróom mokkal nañ ba bind fi kaamil loolu di liggéey bu rëy boo xam ne sëriñ Mame Bara amal na ko ak mboolem ñi koy jàppale ci liggéey bi yàlla dogal na itam ren jii di fi mokkal mi ngi toll ci fanweeri xale yoo xam ne mokkal nañ fi ñooy tari nii ñoo nekk nii yal na yàlla barkeel seen liggéey ñoom itam barkeel seen alxuraan ca taxawu sëriñ bi. Euh, liggéey boobu itam muy liggéey bu am am solo ci ci wàllu diine ndax maa ngi fàttaliku daaw jéeg bi ñuy dem ci sëriñ Mountakha def naa booba ñaar téeméeri xale li fi mokkoon ci la toll. keroog bi ma ko sëñ Mame Bara waxee daf ko ne euh, mokkalal ñaari téeméeri nit rek day jar na ñëw ci àdduna xam nga da nga ñëw ci àdduna fexe ba mokkalal ñaari téeméeri nit